muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy les autorités parce que li tax ma ne il faut ñu wax ñu dëgg mooy nos confrères du euh, du journal l'Observateur c'est vrai comme ni ñu ko waxee comme li ñu ko bindee te dañoo jëlaat sax seen titre démb tegaat ko ci seen unité pour montrer que ne ñoom li ñuy wax ils en ont des preuves palpables ci li nga xamante moom moo jëm ci no paiement bi nga xam moom la ñu doon wax par rapport a cette dette du aux agriculteurs xam nga. situation Sénégal fu ñu toll mooy gis nga booy jiite nit que qu'en soit la difficulté de la situation il faut dire la vérité aux gens et aujourd'hui le Sénégalais ñi nga xamante ñoom nooy les agriculteurs ñi nga xamante ne xam nga li ñuy wax le droit à l'information c'est vrai que après mën nañ la wax ni non euh, c'est pas tout ce qui se du lépp la ñuy wax en fait mais ce droit à l'information permet aujourd'hui aux citoyens lambda sénégalais ou permet aujourd'hui à ñi nga xam ne ñoom ñooy les agriculteurs en tant que tels ñu xam l'information et la vraie information par rapport à cette situation donc je pense que à l'issue de cette sortie puisque l'observateur dañoo def une sortie hier ne la dette n'a pas encore été payée le ministre est sorti pour dire que non contrairement à ce que nos confrères ont mais à valeur de 14 milliards il reste encore des choses à payer et am na loo xamante ne ñu ngi koy xoolaat bu ñu xoolee ci li nga moom la ñu wax ni ki démb maintenant on verra qu'est-ce qui sera la suite par rapport à cette situation mais li wóor ba wóor li wóor ba wóor mooy toute la dette n'est pas encore payée et ça il faut qu'on en soit clair par rapport à cette situation maintenant pourquoi là toute la dette n'a pas été payée est-ce que les moyens sont là pour pouvoir payer jàngat boo xamante ne ñu ngi koy def ci biir parce que nag du ñu ñëw rek fay li nga xamante ñoom ñoom noonu maanaam ñi nga xamante ñoom ñoo yor il faut démb pense que Biray mu ngi ko doon rappeler dafa am des préalables avant même de payer cette dette là et ça c'est important maintenant nag on verra la suite par rapport à cette situation je rappelle encore une fois ces agriculteurs ont besoin de cet argent parce que c'est à travers cet argent-là qu'ils vont encore une fois entamer la campagne agricole et xaalis boobu encore une fois moom la jël par rapport à li nga xam mooy campagne agricole bii di ñëw pour pouvoir justement euh, liggéey jënd engrais entre autres et c'est quelque chose boo xamante ne c'est très important pour ñu kii ko <laughs> maintenant je le rappelle encore une fois les citoyens ont besoin de la bonne information.